Amali ak ki nga xamante ne moom mooy Bougane mayel pe aca fils de Sadio ak Bougane ñaari mbër yaa nga ca fils de Sadio ak Bougane mais combat bu mën a gaaw la. Eh, ah, ah ah xeex nañu de xeex nañu. fils de Sadio. xeex nañu fils de Sadio nag waruñu bu luy père. waru ko nangu waru nangu jàppante bi. waaw waaw waaw wóoru taxabal na taxabal ba yeegul taxabal ba yeegul père. ngay taxabal de. eh Bougane a ngi koy dajale de. waaw mais Bougane dajale na ko. dajale na ko taxabal fils de Sadio. taxabal ba Bougane bañ na. ña ngay bañ taxabal na ko Bougane bañ. eh remplacé na ko. waaw Bougane dafa yegg fu sori. fils de Sadio Bougane a ngi koy dajale. waaw dafa yegg fu sori. fils de Sadio Bougane. waaw mais su dee Sadio ngi liggéey lu ko génn génne ma ngay eh, eh, eh. liggéey lu ko génne. fils de Sadio moo leen woon ginnaaw. ma ngay liggéey lu ko génne. Sadio baayam. waaw. waaye Bougane lay bëreel. waaw waaw. Bougane moo jóge Géejawaay. ay ca ñaari mbër yaa nga ca Fils de Sadio ñi ngi xeex xeexu suuf de ak Bougane ñi ngi xeex suuf Fils de Sadio écrutage si nga la ne waaw Fils de Sadio nag tey ni mu bëree waaw ah, dafa xaw a des def na ay erreur de paire ah, waaw waaw ah, Zongale Bougane Zongale na ko mu bañ mu remplacé ko eh Fils de Sadio ah ñu ngay bëre Bougane nañ de ñu ngay bëre ñoom ñaar dina ko daan ñu ngay bëre dara xewagul de dara xewul Bougane ay la eh eh, eh. kott kott na ko bugaan bañ na kott na ko bugaan bañ na bugaan bañ na yee bugaan daan na ko. bugaan daan na fils de ndax naa la ni mu bëree tey. ni mu bëree dafa def ay erreur. naa tey ni mu bëree baaxul de. dafa def ay naa la ci biir jàppante bi. parce que ki muy bëree nee naa la njool. nee naa la ci. jërëjëf euh, mbokk yi mais mag sa xale bi bëri na bëri bu rëy nag. waaw bëri bu rëy. Euh, gis naa fils de Sadio man dama naan sax pression ba mu bërewaale papa ji ànd moom ci la. ndax papa jam ànd ak ci open press ba ñu ànd ca làmb ja tuus te xale bi di ndaanaan bu papa ji ne ci keppaaram toog day bëgg lim man yépp mu wone ko ci ci ci cinq minutes moo tax action bu ne def na ko mhm. mu fekk nag xale bu résistant mhm. ndax bugaan xamoon naa ne komba bi dina ci indi doole xam nga lu tax dem naa ba dernière minute mu topp promoteur bi di laaj sagaru weccet jël ay biyam yóbbu mhm. te kum woo ku le danaan la ñaanal ma bii mooy sama premier grand combat maanaam fa mu ko tegoon xam naa ne bu doon daanu it du yomb ndax dafa fonkoon combat bi. mais loolu loolu loolu li tax ma koy dëggal àgg nañ ko foo xam ne ci biir bëre bi li nga wax léegi laay dëggal résistance bi mu wone ci biir combat bi xam nga sànq maa ngi koy wax ci suuf ne ko ñaareel na nga fexeti mbër di la bañ agg foofu. parce que en général am na mbër yoo xam ne bu ñu leen àggee foofu balaa ñoo réagir ñu daal leen parce que fi ñu ko àggoon dafa sori mais résistance boobu nga wax laa gis mu am ci biir bëre bi xale bi takk ko chargé ko di ko xalab à tout moment bu ko xale bee mu jéggi bu ko xale bee mu jéggi ba ni muy mujjee am réussite di mujj tenter chute bi nga xamante ne nii moom la tenter. xam nga euh, loolu dafa am solo te dañ naan tout début est difficile ndax bi muy ñëw di dabu leer ko ne ne la ko promoteur bi fay da ciy def weccit da ciy def xaalisam ak i mbokkam pour am ndam ndax benn instant sax ne na ko heure bi da war fexe di récupérer.